dellu ginnaaw nag ci wàllum littoral bi lée ubil sur quotidien nañu Ousmane Sonko day waaw daal dina ne saraax dugg kon ca littoral ba la ilaha illallah ngir jàkkaarloog ñi nga xam ne nag maanaam ñoo fi nekk di jaxataxatee kon wàllum suuf si la yéene kaa gi ne dama ne la gis nga kilifay bee si lée waaw tànk yii ñu taxawee njortees nañ ne duñ dellu ginnaaw de déedéet ci ñi nga xam ne kon maanaam dañoo jël suuf si kon di ko jaxataxatee wàllum littoral la journée dama ne Ousmane Sonko day a ñuy def yor yor yéene kaay réew mi quotidien ne dakkal nag wàllum liggéey yi nga xam ne kon moom moo am waaw ci wàllum domaine public maritime bi ah premier ministre ba day nee na du dellu ginnaaw de maa la ko wax bu dee Macky Sall concu la jëloon teg ko ci ay kayit waaw Ousmane Sonko mi ne kurpeñ la téye kurpeñ la ilaha illallah ay tey gars yi la main ferme de Sonko laa la wax libération yéene kaay ne Ousmane Sonko day waaw ma ngay lëmbat nag wàllum littoral bi lé di ko fuye waaw lépp luy xeetoo kon ak wàllum tabax ak lu koy dakkal suspendre ko fii ak ñaari weer révélation yéene kaay ne audit domaine public maritime bi lée ci Ndakaaru waaw tabax yëpp Ousmane Sonko daal dina koy dakkal ba fii ba ñaari weer sur quotidien ne ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali dama ne la premier ministre ba day dossier wàllum littoral bi waaw moom lañ ko jox ngir muy contrôler ak a vérifier lépp luy xeetoog wàllum ak occupation ci wàllum domaine maritime public bi lée ci de Dakar maa la ko Cheikh Omar Sy ancien député ci bés bi la jour waaw nee na nag gis nga commission boobee ah ay nit ñoo xam ne dañoo am nag ci suuf si mais waruñ leen dugal kon ca commission ba Walf Fadjri ne ko loolu nag moo am déet waay yéene kaay Sidi Lamine Niass gi ne dama ne ay membre au conseil des collectivités territoriales ak ay membre conseil économique social et environnemental waaw mais ñooñee leen copte dugal leen ci commission ad hoc bi laa la wax ci wàllum libération yéen kaay nee na construction wàllum tabax kee da fes waaw lu tolloog téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent yu tëgës lëf cent soixante-dix-neuf virgule six cent cinq million waaw yoo xam ne dañ koo décaissé ci marché boo xam ne yow fictif la eh waay samba laa ilaha illallah dama ne la cour des comptes day ña ngay sàkku nag ñu topp kii di directeur général bu Lamp Fall BTP te dàq nag société boobu bee ci marché public bu Sénégal le quotidien yéen kaay ne accident avion ba day yaa ngay naaw ah. aha ña ngay décoller de enquête yaa dem de parce que procureur Mbour day waaw la mu santaane daal moo ñu ubbi l'enquête sàgganee ay bakkan la de maa la ko wax na benn équipe Boeing boo xam ne day ci waxtu yi di ñëw ñu ngi leen di xaar ci ndakaaru njaay jël jóob réeroo am de direct news ne réeroo kay ci biir gouvernement bi la am aha waaw ci lu jëm nag ci wàllum promise bi programme bi jeex na wala jeexul yéena kaay Pape Jogoy Faye bi ne déggoo ma de réeroo am na ci biir xam nga promise googee waaw lu tolloo 47 milliards la banque islamique de développement génne woon programme boobee waaw waaye ministre microfinance bu bees bi lée di la mu xam daal mooy programme de développement de la microfinance islamique promise koo gée day jeex te dootul yàgg te loolee bu amee nag daanaka lu tolloo juróom fukki ci ay doomu aadama danañu ñàkk seenu liggéey la la wax waaye ministre Alioune Ndione moom moo loolu te jamono joojee ministre Alioune Ndione di xam ne promise léegi jeex na ministre Abdourahmane Sarr budget sàkku woon na ci banque islamique 31 te kasewu ministre bi ci boppam kon moom moo ci nekk direct news de waa kon réeroo bii moom gars dañoo concerté wul seen biir ñoom ñaari ministre yi te loolee nag mën naa xagamal ak a tilimal image suñu administration bi lee administration boo bee source a nee na lëlu yi nga xam ne kon doon nañ ko amal day ak ne ñoo yëngu nag ci wàllum jur gi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu nag ci wàllum jiwu gi opérateur semencier yi waaw te nawet baa ngi nii di ñëw lii xeeñ neexul de lii xeeñ neexul ne sent diw googee waaw la ñuy sàkku daal mooy seeni 43 milliards bor 2021 2022 2022 2023 te premier ministre bi diggéen leen ko diggee bor la na xaalis ba gaaw génn booy benn ñaar ñoom ñoo ñee yëngu ci wàllum jiwu gi ba léegi ni la jàpp nañ ne boruk 2023 2024 waaw waaye buñ fi tuddi audit de parce que bor yooyee facturé woon nañ ko te kayit yaa ngi ci loxol buur état bi booy ñaar ñett ba démb laa la wax ci ñeen fukki milliards ak ñett ya day ñaar fukk ko jot a dugg te njiital gouvernement bii di Ousmane Sonko day moo leen diggoon ne diggante le 6 ak le 10 mai lépp dana réglé wu boobay ñett ñeent ba talaatay démb laa la wax 19 milliards yaa ñuy wax ne viré nañ ko te mu jóge banque agricole ak 1 milliard yu diggante BCEAO ak banque islamique ak BND positionné gul woon de même bu dee mën naa positionné wu diggante démb ci guddi ak tey ci àllarba ji lee tey ci àllarba ji waa Pastef am nañ gande Jean-Luc Mélenchon waaw Ousmane Sonko dana ko dalal tey visite ba neex naa expliqué parce que Ousmane Sonko ka tubaab boobee mais da koo nga xam ne Ousmane Sonko doon na ko na ci ay militant yu bëri ca France kale ay membre France insoumise lañ Juan Branco avocat Ousmane Sonko waaw mais candidat la woon ca France insoumise Dakar Times te Sonko mii di dalal kon Mélenchon day nga xam ne ci wàllum ngóor jigéen lay yëngu ar di tali tey ci àllarba ji la te am na conférence publique ak étudiants ca UCAD ga suba alxamis la yéen i kaay mut baan bi mooy wax du samay kàddu dee ana fu tabaski bi toll réew mi ko di yéene Ousmane Sonko day démb ca ndaje ma waaw daal li le ni mu seeree xar yi te la 24 heures yéene kaa ne conseil interministériel bañ doon def ca tabaski ba day waaw Ousmane Sonko lu tolloo fukk ak juróom ci ay mesures daal dina jël la ñu soxla saxaar nag toll na ci 810 têtes allahu akbar ah maa la ko wax le verdict yéene kaa ne tabaski day conseil interministériel ba lu tolloo fukk ak ñeent ci ay santaane le premier ministre bi Ousmane Sonko yëkkati démb 24 heures yéene kaa ne ay waay affectation wala dossier Ismaïla Madior Fall waaw évidence seen kaay nee na BRT gi ah nag yenn ci ay gàkk-gàkk day xanaa nag léegi yaakaar mën naa juddu critique yéen kaay ne tolluwaay réew mi day ndakaaru njaay jël joob waaw mi ngi dox mais jomaay ma jomaay ma BRT bi day bii si tey jilee dinañu commencé daw de mais jomaay ma ndànk rek ndànk rek ndànk rek en tout cas mooy gën a gaaw car rapide yi lée ak tataay waaye jomaay ma rek prudence ndànk rek jomaay ma wàññi njëgal dund gi lée critique kaay nee sonko mi mi ngi bëgg a indi wax waxet de maar di taali sonko na mais parce que wàññi dund am na ci loo xam ni ca bitim réew la dépendre mais loolu tam mooy dëgg yoor yoor waaw teel naa wane boppam de maa la ko wax le quotidien yéene kaay ne moom Waly Diouf Bodiang moomee waaw li mu xamle daal ci opposition boo xam ne ay milliardaire lañ ah ëpp nañoo bàyyi ci mbedd mi de tëj ci kaso bi rek maara day taali leese ko yéene kaay ne Waly Diouf kay waaw jaay na gars ñu tongal daal di topp kon milliardaire yi nekkoon ci nguur gi ak majorité ba ci assemblée nationale dama ne Waly Diouf li gars yi ñam-ñamee ci suuf waaw jaay na leen parce que mu ñàkk mi lé loolu wóorul loolu wóorul Waly Diouf Bodiang ne vingt cinq député day waaye mënuñ koo gérer mi la wax dañoo war a am majorité bu baax ca assemblée nationale le fond yéene kaay ne journaliste chroniqueur défenseur du projet Pastef waaw Serigne Saliou Gueye day bokk na ci xam ne dañoo xeex ba dee maa la ko wax taxawal journal am yoor yoor te gis ko kat jël nañ ko ba dugal ci kaso bi 23 mai 2023 laa waaw waaw waaye gis ko tey la valeur Bambey en avant waaw ci laa defee seen kaay waaw ne na ñun daal politique bii nga xam ne xuusmaa ñàpp gi de bas waaw dëgg dëgg te mu nekk fii ci Bambey gi lée lañ fi bëgg a dakkal laa la wax daam nga may wax de dem naa ca laa mujj les écoles yéene kaa ne da doon daw day waaye mujj dañ koo jàpp kana xanaa lak dëgër numéro deux maar di taali la sabab lu ni mel nag mooy ci wàllum visa la duggoon de ab plainte boo xam ne day mook bras droit am bi lée lak dëgër daw xaalis ba kat toll na daanaka ci ñaar fukki million laa la wax allahu akbar moom mbër moo mee mujj nañ koo jàpp évidence yéene kaay ne waa Sénélec day indi nañ ay gindi de ci ñi doon wax ni courant bi lee dañu koo yokk en tout cas mitti na daal <laughs> waaye courant bi de ak lu mu mitti mitti mitti mitti mitti mitti mitti bu leen fàtte ne suul gaz du ko teree xeeñ te dawit xulaa rëcc parce que Sonko jomaay te jomaay Sonko boo paree ma ne la alaaji tëj